asalaamaaleykum mbokku téléspectateur yi ñu bàyyi xel ci jamono ju nekk ak saa su di leen jaajëfal day njëkkee suñuy kàddu rek di leen wax ni déw nit yi baal leen ñu àq waaye itam baal nañ leen yàlla nañu yàlla boole baal di jaajëfal mbooleem suñuy internet yi nga xam ne ñooy safoo jàmm ji info point net di leen wax itam ngeen gën di wéy di abonné ci compte YouTube bu jàmm ji info waaye tam di bës ci cloche de notification bi tax vidéo bu dugg ngeen koy daal am à temps réel mbokk yu mel ni jamono ji ñu nekk muy jamonoy tabaski gis ngeen image bi li koy wane euh, mooy li nga xamante ne balaa ñu si ñëw ki nga xamante ni rek moo di sëriñ Modou Kara Mbacké Noreyni euh, yëkkati woon ay kaddu waxtaanoo nag ak oustaz Iran Ndaw xamal ko rek ni euh, ñett yi mbir yi rek laa doon sàkku rek nga may ma ko muy benn bi rek mooy takk samay lunettes yaakaar naa loolu gis ngeen ko ci à travers les internautes waaye beneen bi tam mooy ngee takk di samay montre waaye tam Iran ndaw takk na montre ba ñëpp gis ko ñetteelu poñ bi rek mooy li ci desoon mooy li nga xam ne moo di xarub tabaski gis nañ leen di bi weesu euh, bésu taxawaay Arafat sax nga gis ni euh, taalibe Sëriñ Modou Kara Mbacké yi dem nañ ba Tiwaawan euh, yóbbul li nga xamante ni rek moo di oustaz Iran ndaw muy xarub tabaski bi ngeen di gis ni ci image bi moom yóbbuloon na ko fa yaakaar naa tam boo leen xoolee à travers ci internet yi tam da ngeen gis li nga xamante ni rek moo di xarub tabaski bi ni mu ñëwee ni mu yegsee ba ay kaddu yi nga xam ni oustaz Iran Ndao yëkkati woon na ko waaye tamit yaa jëfaloon ci euh, ki nga xamante rek moo di sëriñ Modou Kara Mbacké no réy ni euh, ba tax euh, gis ni muy xar bi nga xam ne tey bésub tabaski oustaz Iran Ndao nag ñetteel bi poñ bi nga xam ne waroon na ko matal mu ne ko nga tabaski sama xaru tabaski xar bi ma lay jox nga tabaskee ko kon yaakaar naa ni tey yéen a gis noonu ci daara sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu nga xamante ni oustaz Iran moo jiite daara gi moog waa daara gi xaru bi nga xamante rek sëriñ Modou Kara Mbacké no Tamrin bu mu joxe woon mooy xar bi yéen a ko gis ni euh, ci image bi nga gis niñ ko waajalee euh, ba niñ ko defaree ba niñ ko defaree macha allah ba ni ñuy euh, lakkee ndawal gi ñoom ñëpp fa seen rek di ci barkeelu mu mel ni rek nii li ko sëriñ Modou Kara Mbacké Noreyni waxoon takkal samay lunette loolu def na ko takkal ma montre sama montre waaye tam oustaz Iran Ndaw def na ko waaye lii mooy xaru tabaski bi nga xamante ni nga tabaskee sama xar oustaz Iran Ndaw moo tax image yi ndax doo gisee ñu yi ko lépp sotti ci ak def la ak defaraate defar euh, mu nekk loo xam ni image yu euh, rafet la ndax lépp rek day nekk ci loo xamante ci wàllu boole euh, macha allahu rabbi kon gis ngeen ko ni fii ci Tiwaawan daare sëriñ Babacar Si radiallahu taala anhu muy sedd xol macha allah kon yaakaar naa ni li ko sëriñ Modou Kara Mbacké Noreyni ñaanoon def na ko kon yaakaar naa ni oustaz Iran Ndaw itam mu ngi jaajëfalaat tam di ñaanal ki nga xamante ni moo di sëriñ Modou Kara Mbacké Noreyni mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye tamit moom it koy ñaanal yàlla mu yàgg fi ak mboolem